naa koo doxal. boo ma koy doxal mais booy si loo nekk. moom nit dañuy eh, gis man. Eh, man man eh, yow <laughs> man je naturellement comme ça. Hmm. boo ma gisee da nga yaakaar ni man dafay ñoddi loo xam ne newul ci moom. yàlla xam na ni je ne pas comme ça. man ni ma mel ni nitu kese la. parce que Seydina Mouhamed. non ba man du question la baax sax. mais mun naa la benn question. ok yow yaa ngi boo julli ba teg sa loxo di taaya looy wax. nga woor. di julli ba teg sa loxo ngay sëlmal. waaw wala waaw di taaya. sooy que kiyaatulilaay ngay tari. waaye yow non non loolu ngay tari daal booy bu ma ci xuus loolu lenn bu ëllëgee ñu ma koy xoolee may ma sama yow mënoo man man xam naa yow boo boo bi. waaw booy taaya looy wax mooy boo booy avant ngay def nii. kon yow xam nga

allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu waaw kay sori li sori nag lii moom ah, lii laa mënut wax c'est que lii ma të mais pour wax sérieusement TikTok ñu leen di fay non TikTok fayul am nga cey partenaire man TikTok fayu ma dara mais TikTok dañ koy pour visibilité rek la man man loolu laa ko ñi muy fay na xëy na duñ Sénégal man gisuma Sénégal ku TikTok fay xanaa nga am compte Europe ma gëm ne TikTok mu ngi lay fay parce que man man moom xam ku ne xam na ne man artiste la laa fecckat waaw man ki may liggéeyal moo may fay muy Bass Thioung voilà man moom moo may fay mais TikTok fayu ma c'est que TikTok nag dañ ciy dugal suñuy vidéo pour nit ñi gën ñu am visibilité bi waaw. waaw da lay apporter lu bari ndax à part visibilité mën naa mën na laa xëccal ay partenaires wala yooyu. waaw des fois nit da lay soxla ci ay affaires yoo xam ne TikTok la lay mën a jaar pour message la pour mën laa jot quoi loolu tamit da cee baax trop trop trop barke Serigne Touba loolu lu baax la waaw mais xam dinaa ubbi nag TikTok international pour boo xam ne dina ma fay ndax nii tamit di dugal nit ñi di la seetaan te fayuñu la dafa métti. c'est trop. est-ce que mës ngaa dugal vidéo jot ci ay jot dégg ci lu ne nga dugal vidéo jot ci ay critiques wala nga jot ci ay commentaires yoo xamante ni xëy na tere na la nelaw. waaw yàgg naa jot vidéo ba barki démb maa ngi dem sama kër Serigne euh, dem ziar yi mais sénégalais kon duñ comprendre quoi parce que ñun dañoo sëriñ Serigne boo xam ne noonu la ñuy ziaree ñun dañu demoon ziar gars yi jël nañ vidéo bi dugal ko dama doon fecc nag parce que sama Serigne du may jàkkaarloo moom damay def loo xam ne xolam day féex mën a bër xëj waaw gère sama sëriñ ñu jël vidéo bi dugal ko TikTok critique na nag maa ngi dégg ne mais nag sant yàlla fi Sénégal ku dul doo avancé waaw bu ñu demee ba lay critiquer rek jàppal ne yaa ngi avancé. bu ñu nee bër ne bër xëj ñett fecc lu toog. noo ko feccee. siif ne bër xëj ñett raam sama sëriñ jébbalu mu ñaanal ma ma wëy. ma yëg yokkute barki maam Cheikh Fall yëg yokkute bu rëy waaw maa ngi nag maa ngi baalu ñëpp àq ci weeru koor gi di bal ñëpp àq képp koo xam ne daf naa lu la bal ma àq képp koo xam ne man mii tooñ nga ma baal naa la àq ci barki weeru koor gi barki Seydina Mohamed maa ngi baalu ñëpp àq di ñaan nag senegal yàlla na fi jàmm yàgg ci parti au ak non au pouvoir. yow fan nga man may rek. fii. ku àndul ak pouvoir ku ñëwaat ma ànd ak moom man pouvoir rek man lu ne ci pouvoir bi rek maa ngi ci lu nekkul pouvoir nag waxuma parce que pouvoir mooy nit xalaatal pouvoir rek yaa ngi liggéey ak pouvoir xalaatal benn affaire pouvoir ak non pouvoir yow boo amee pouvoir fu la neex dugg boo amul pouvoir doo def fenn doo seetaan film. léegi yow pouvoir bi ndax yaa ngi liggéey ak ñoom ba xam ni ngi lay jox yaa ngi ci gis la ñoom rek laay toog pouvoir. maa ngi lancé benn message man Grand Yoff laa dëkk nag keroog yéen a ngi gis si TikTok bi benn booy ñami-ñami di wax si ndoxu puum mi ndox mi ndox mi ne Grand Yoff ñun dañuy naan suñu autorités yi ne foofu tamit ñu jàppale ñu defaral ñu ndox moomu ndax sonn nañ trop. Grand Yoff Zarko. waaw mais Zarko dafa encaissé. moo booy la ñoo bokk koñ mais moo encaissé moo booy la nag man sama waay la sama xarit boo amee combat damay dem jàpp si boo mu nooy mais nag boo encaissé da ngay woo booy yëpp ndax Grand Yoff ñu ñëpp dañoo manko solidaire dégg ñu ne Grand Yoff bu koo ci bippe nga bippe ku bari crédit Grand Yoff koo ci bippe nga bippe dëkk bu bari crédit barke yonent bi léegi bu ñu jógee Grand Yoff léegi danga tudd benn artiste muy koo xamante ne artiste international la muy Bass Thioung mën nga ñoo wax sa digganteeg moom seen xameel fan la jógee ak seen seen relation yéen ñaar. kooku yàlla dafa def samar lay xamante noonu après ñuy liggéey ñuy liggéey liggéey bu rafet barki Serigne Touba Mbacke muy ku baax ku gëm boppam ku am fulla ku duggul si yëfi jàmbur moo tax may am fitu ànd ak moom man moom rek laay toog ci àdduna man Bass kese laay topp. wër na Serigne Bamba te xam nga sénégalais moom waxoon na fi day dem Qatar nit ñi naan Bass Thioung dem pourquoi Bass Thioung warul dem liggéey na fi loo xam ne war na mën a dem Qatar waaw. ñu yooyu nan ngeen ko dundee woon. danoo toog waxtaan ma ne ko alaaji. ak gaaw a dégg naa mu jooy ba a dee. dem wa ma ne ko bu u dem parce que wóorul mun na noo dóor ñoo umu Sénégal dama nu dóor na ba su ma bu demoon dañ ñuy dóor ba su mënoon na dem ñu jël bi waaye demul dóor lu toog nañ ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di kontaan di kontaan ndax lii ba pare di wax si ndogu bi lii rafet na chaque année nag dina gën a yokk chaque année dinañ ko gën a yokk bu déwénee université yi ñëw daf ay tànt takk ay nag woo jànkat yi ñu tagg est-ce que mën ngaa tagg yonent bi yow mën ngaa jàng. bu jàmmaloo layla lala amana rasulullah. jaajëf gannaaw nag revenons au sérieux Iman nuyuwaat nañ fayaat naa leen. lan wax ci ndogu tiktokeur yi tey. ah macha allah di si kontaan rek parce que tiktokeur moom fu ñu ko waxee rek waaw je pense que ne képp ku am compte rek même na am benn abonné sax yow yaa ngi ci biir kon lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca. du yëfu imaan du yëfu Abdou du yëfu Demba ñu yëf la ñun ñëpp parce que li yëfu jullit la ñëpp ko moom. est-ce que xaaroon ngeen mu réussir comme ni mu réussir tey ñëpp ñëw tiktokeur yëpp ñëw waaye tamit université ñëpp génn ànd ak yéen. waaw xaar nañ ko parce que li ñuy def dañ koo gëm te ñun fi ñu jëm ko ñun lii leeroon nañu ñun que lu ñuy def nii day réussir parce que ay xale te am nañ jom bi am nañ ambition bi loolu yàlla defal nañu ko moom. léegi euh, est-ce que mën nga ñu wax lay lan nga yëg bi nga ñëwee gis euh, accueil bi gis. foo tourné ñu naan la Imane Imane tey lan nga yëg. c' est un grand grand plaisir quoi plaisir bu mag a mag la c' est un immense plaisir parce que da ngay gis ñoo xamante nii mën naa ba ngay tiktok ñoom tiktokuñu ba ñuy tiktok ñoom aussi tiktokoo ñu nekk ay tiktokeur yu mag ñu nekk ay mais soxoruñu barki Seydina Mouhamed ki nga gis mu ëpp flow ci tiktok bi soxorul day ñëw ne la Imane li ngay def rafet na su ma sañoon nga defee ni jox la conseil ne la lii ak lii barki alxuraan ñoom dañoo gën tiktokeur yëpp nag bàyyiwuma kenn. man ñëpp samay xarit lañ barki Seydina Mohamed jàmm laa séq ak ñoom. loolu léegi léegi nii sama sama sama sama sama frère bi Dera dafa dafa la tooñ ne la da ngaa mën a bandi bandul te TikTok bi ñu bëri image boobu la ñuy am ci yow dañ naan dañ naan Imane dafay ñàngal Imane dafa mel ni lan ngay tontu ci lool noonu. moo dañ ma xamul rek Imane dañ ko xamul mais ku ko xam xam ne Imane nitu kese la amul benn problème te Imane tamit li nekk ci moom nii du lu mu incarné du loo xamante ne nii tamit da koo forcé lu naturel la ci man ma di ko dund jeex na. pare naa ci lu. nii nga mel naturellement daal. nii laa mel naturellement. léegi politique Sénégal yëngatu na Ousmane Sonko Macky Sall ah Mame Mbaye Niang nana lan nga wax ci politique. xaw man moom ay affaire politique moom dama ci dul sori mais yàlla daf maa dimbale ni euh, Sénégal dafa am fu mu toll Ousmane Sonko bu demoon tey ba war a mën a jël réew mi barki leerug alxuraan ni mu def bu yàlla sàkk mënu ci dara mais lenn lañ koy ñaan ñun. bu fekkee am nañ ko te am nañ kàddu bu ñu yàlla may ñu war koo mën a wax mu dégg violence bi na baax. Ousmane Sonko Ousmane Sonko daa taxaw ne ku dee sa yaay juraat ay tay bu dee woon yaayam dina juraat est-ce que nañ laajte loolu du amaat de Ousmane Sonko bu na Macky naree wàcc moom munu si dara keneen munu si dara Macky bu naree wàcc ñu man man je suis sama yoon nekku si ay mais violence bi mu woote moom mooy wax jug leen xale jug moom bu waxoon toog leen xale toog leen lañ koy ñaan mu bàyyi ba mu dem ci yar ak teggin ak ci ngor dem gagné ko yàlla may ko ndam bu sedd guy Macky wàcc parce que ici au Sénégal nul ne peut exercer à deux mandats à trois mandats autant pour moi je suis désolé autant pour moi nul ne peut exercer à trois mandats Macky am na deux mandats am kon leer nañu ñun ñëpp ne troisième mandat lu mënta nekk la kon ki war a toog na def ndànk ci dal ci yar ak ci teggin ba yàlla may ko ko ci ci ci ci xol bu sedd guy. je pense. fan yee paase fi may daanelee fan yee paase dafa benn coow lu jug mu am sa benn vidéo boo xamante ni dafa dafa xaw ma nu ma ko mën a tuddee fuité wala ñu dugal ko am ñu bëri doon la ci laajte explication est-ce que mën nga ñu dikkatal ci vidéo boobu. <laughs> vidéo boobu bi ay reesa la may def parce que barki alxuraan nit ki boo jëlee yow intention def lu bon da ngay laaxatu de mais vidéo bi ma koy def sama famille ñëpp a ngi toog ñun ñëpp a ngi toog mais xam nga ay nit yàlla da def ñu am ay relation yàlla dimbal leen ñu bëggante te yàlla rek tax kooku dafa maa bëgg te yàlla rek tax ma bëgg ko te yàlla rek tax. mais mbëggeel entre sœur ak sœur. sa sœur la daal du sa dara. man jigéen laa moom gënu ma saf jigéen moom jigéen la man gënu ma ko saf jigéen gënu ma neex de barki Seydina Mouhamed man su ma taxawee ma ne bu fekkee jigéen bu ñu biisu si lèvre moroomam jigéen biisu ko lesbienne lañ lay woo. 99 pour cent yëpp ay lesbienne lañ affaire bi du du du question liñ ci gis imaan la bu doon keneen barki leeru alxuraan du noonu. bu doon keneen du demee noonu mais imaan la man maa am lu ma incarné nit ñi nangul ma ko suñu ma gisee si yenn yi yoon la ñoom ñu wax ñuy wax terew ma leen ñu wax de mais dafa am ay ñi nga xam ay kilifa ay maire taxaw lu toll ne télé di yàq doomu jàmbur barki leeru alxuraan ak weer gi ak sama koor gi nii ku ci nekk si ñoom bay naa la ak yàlla. billahi wallahi taala te man alaxira du ma tardel kenn bu fekkee man maay tax yàlla di attendre jigéen diggante jaam ak jaam baal naa ñëpp billahi wallahi taala mais lépp lu ma waay banaa la ak yàlla maire bi taxaw lu toll ne xaw ma ban seen di wax naan imaan lii ak lii naan imaan dafa réew moom xamuma te bu doon doomam amaan na neneen la koy waxee mais du ma doom juruma doom sa doomu géñoo mais moom na xelam noonu la toll man imaan baal naa ko ak te barki Seydina Muhammad loolu sama diggante moom la yàlla man bàyyi naa yàlla te man doomu yoon man doomu yoon laa barki leeru alxuraan ku ma tooñ di nga ko gis billaahi wallaahi taala ku ma tooñ di nga ko gis waaw Ndiaye Lo dugg na ci TikTok bi tamit teg sa photo jël vidéo bi commencé critiquer mu mel ni dafa am lu muy nduróol tamit ak ñeneen ak ñeneen bëri na ci mais Ndiaye Lo lañ mën a tudd tey Ndiaye Lo dafa bëri ay caaxaan te barki Seydina Mouhamed si média laa taxaw suñu ñeenti ko ci bu dajee dina demee neneen wallaahi ah? wallaahi taalaay parce que Ndiaye Lo dafa ma tooñ man man Ndiaye Lo amu problème parce que njëkk na def vidéo si Iman taxaw ne Iman lii ak li ma xam ne vidéo la barke alxuraan dafa ma woo téléphone ne ma imaam ma ne ko naam mu ne ma sa nijaay defal ma reetaan amul problème mais xam naa ma merloo man ak ñu taxaw wax ay audio whatsapp Ndiaye Lo dem jël ko dugal ko kontam loolu ma tooñ loolu ma Ndiaye Lo tooñee mais nag man imaam amul problème. mais est-ce que après loolu déggante ngeen pour nga demander ko explication wala yooyu noonu parce que Ndiaye Lo tamit wax dëgg yàlla amul problème moom tamit. naa ko jotuma ko ma ne ko Ndiaye Lo barke alxuraan ay heure laa la may vidéo boo ko supprimé wul je vais porter contre toi te moom loolu leer na ko barke Seydina Mohamed mu ne ma Iman c'était juste pour blaguer ma ne ko Ndiaye Lo gis nga li ngay def pour am si visibilité yaa def pour yàqal nit ki barke Seydina Mohamed képp ku jël vidéo Iman defar ko di wax visibilité nga si doon wut visibilité nga si doon wut yàlla dala si may visibilité boobu de mais yaa ngi yàq yaa ngi gaañ barki leeru alxuraan mais retombé yi retombé yi après lan nga ko dundee. Iman sama yaay la. sa lan la. Iman bu mës waaw. boo xamante ni moom day wax ku nekk na wax li neex. sa sama yaay la. moom moo la jur moo ma jur waaw sama yaay la waaw. ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup à vous.